2021 14 mars 2023 ñu xëyoon nag Sénégal dimanche boobu xëyee tiis ak njàqare ñu xëy askanu Sénégal yëpp sëngéem ndax monument bi nga xamante ne moom ñu ñàkkoon mu nekk Papa Thione nga xam ne tey la ñu koy saraxal ñaari atam mu nekkoon perte boo xam ne bu métti la ba léegi nit ñi di gérer wuñu ko tey moom lañu fas ne rendre hommage gannaaw ba ñu fàttalikoo ay image yi nga xam ne moo amoon si bés boobu nga xam ne def na tey ñaari at gannaaw itam bi nga xamante ne ay mbokkam def nañu seede si moom mu nekk perte boo xamante ne daal yaakaar naa Sénégal duñ ko gaaw fàtte ñu nommé woon le parolier de la musique sénégalaise ñu dem seetaani hommage bi ñuy rendre tey Papa Thione di dellusiwaat d'accord boo xam ne alors baaxaayam euh, amul ab ñoo dëkk ci koñ bi ñoo tabaxandoo alors nit ñi toog di ko xaar damay film damay interview lu mu am jox leen damay toog sax romb ah, ah, yéen a ngi xaar seen waaye da jógagul ñu ne ma jógagul mais bu jógee lépp sa con daal mënuñu leen ko yàlla mi mën a fay yàlla na ko mi mën a fay am fay moom guddi moom bëccëg yàlla ko fay nag ma ñu tëral suñu gala tey lii laa jaayante woon ak moom lii laa waxante woon moom dama ko ni grand tant yaa ngi def musique galaawu Fodioka yooyu yaa koy def moom mu ñëw vraiment en pleine scène galaa daaw mu témoigné li nga xam ne loolu lañu wax kon nag mun naa wax tey Sénégal perte na perte na mais ñun Fodioka kenn ñoo perte ndax bi ñuy créé Fodioka en 2007 li ñu ko njëkk def nii dañuy organiser gala ci amuñu woon sax luñ ñu ko fayee moom la ñu wax ak moom mu accepté ni bu ngeen ñëwee su ngeen tëggee ba pare bu ngeen paree ngeen doog ma fay. Thione Seck nit la bu baax koo xamante ni wax ci moom man vraiment boo dina ma ma jeexal maa ngi fàttali bu suñu premier galaafoo bi daal damay ñëw avant Thione bi yeeg Papa Samba Diabara Samba laa andi te Papa Samba Diabara Samba xam nga kii bëgg moom nga jëli ko bëgg dëkk bi indi ko mu wër la tëggal ci amoo loo koy fay ma ni Thione j'ai pris un risque de parce que Samba Diabara laa andi waaye. projet ka amuñu sponsoring bu mun a tax tey ñu fay ko war naa ko fay deux cent cinquante mille xaw nooy def coon yónnee këram jël deux cent cinquante mille def moom ma fay mu am benn chaine de télévision bu ñëw war a def direct chaîne bi dem ba ci biir ma ameel ko huit cent mille mu daal di day débranché yëpp yëpp coon yónnee këram indi huit cent mille ñu fay euh, Gala Fogeca je crois que ni chaque année chaque année moom xam ne ni yëpp boppam moom mooy njëkk tëgg wala moom mooy mujjee tëgg su ma ñu jaay la ma jege woon ko tuuti ndox entre quatre ba quatre bari woon naa lu may gis Thione Seck ndax boobu ba seen moo doon bëtëram mook suma yaay ñëw bokk ndey ak baay mook Thione ñu nekk bi mook Thione nekkee mooy bi ñu dëkk inte 10 sa ngoon dama daan jóge Pikine dem unité 10 di seeti Farba Sène di gisaale coon foo laa gënoon miine coon parce que boo xoolee àdduna yëpp coon way na lépp bàyyiwul dara kon koo xamante ni démb doon ànd ak ñoom njaayloo mbay waaw loo xamante ni loolu démb la waaw di ànd ak ay kilifa yu mag fii ci dëkk bi ñoo xamante ni chaque jour damay toog léeg-léeg ñu ma koy wax li ma fàttali naan ma ñoom Ali Baata la daan àndal Ah, ñoom sàmba Jabare sàmba ñoom ñëpp Thione Seck fréquenté na leen ndax baaxaay gu mu nekkee woon ci réew mi ba pare di way loo xamante ni yow tey boo nekkee doomu réew mi soo toogee déglu coon sekk ba pare rek boo paree yedd sa bopp. grand frère nekkoon nit koo xam ni lépp lu la Moussa wax rek ci siraatakal mustaxim la koy teg parce que ci dëgg rek la koy teg moo taxoon d'autant plus que moo tax les gens disaient que nii dafa tàng dëgg googu moo taxoon ñu naan dafa tàng. dëggoom moo tax mu tàng. coon wax dëgg daaw si baale bu fekkee kum rus la dana kaf yow bu wax la dëgg bu fekkee rus la dalay daal di jaar si digg bi loolu daal xam si moom. coon mun naa wax ne ni gars yi di firee moom noonu lay jëlee di waar sénégalais yi te tey mu nekk koo xamante ni mu ngi si biir suuf mais mu bett ñëpp nag ah, mais coon tamit nekkoon ku jullite coon ku gëm yàlla. benn bés li ma gën a remarqué moom Thione Seck parce que nitu nit la koo xamante ni moom moom dafa gëm boppam Thione Seck ku ko xam dëgg-dëgg nag laa li nga xam ne kii ku gëm boppam la keroog li ma gën a remarqué mooy keroog bi njaayloo Lo génnee àdduna Thione Seck dafa ñëw fàttaliku démb moom ak Thione ñoo doon ànd mu nekkoon loo xam cosaan la su ma ko waxee tey képp ku bokk ak Thione Seck rek su ma tuddee Ndiaye mbay Mbaye di nga xam ne di nga xam ne wax naa koo xamante ni ku ko jege woon la démb ñu ànd di wayandoo ñoom ñaar di defandoo lépp keroog bi mu génnee àdduna dafa ñëw teew def ci lu rëy rëy loo xamante ni tey kenn du ko fàtte. bokk na ci koo xam ne ku yiiroon njabootam la aussi lépp lu mu daan xëccu suba ngoon rek njabootam a taxoon mu koy def. <laughs> waa Aïcha gis nga ko muy noonu comme ni ñu koy faral di waxee rek dee ñëw si lu dul mbetteel. c'est c'est c'est très dur Papa dañ koy fàttali mais moom aussi lu yàggul dara dafa ñàkk yaayam mm-hmm. sûrement loolu moo ko moo ko jooyloo mm-hmm. ak nag dafa daal di gaaw c'est émouvant ouais, c'est euh, xam euh, nga parfois lii bu amee souvent nit ki euh, day day delluwaat en fait day am ay images yuy dérouler waat par rapport ak euh, li mu jot a seq wala li mu dund sax par rapport ak li ko kooku dunduloo ci dundam aussi parfois facilement ça peut faire euh, Euh, donc euh, nit mu craqué ça peut faire craquer mais euh, dañ koy ñaanal rek yàlla. yàlla woyofal suuf ci kawam te yaakaar nañu ne aussi li mu bëggal doomu aadama yi aussi ci diiru dundam aussi parce que tam way dañuy wax mais loo xam ne da nga koy déglu aussi sa xol féex. Mm-hmm. nga meroon mu dellool la wala nga am na foo tolloon mu loolu tam yaakaar naa lu baax lay doon yàlla na ko yàlla fay loolu daal. Papa Thione moom pour nga digérer euh, décès wam du yomb parce que xam nga c'est monument la moom et à tout moment même bu nekkee génn na àddina sax dangay ngay daal di déglu ay son wam yi nga xam ne dañuy yeete donc euh, nay je suis vraiment désolée moom xam naa nag dafa daal di xalaat rek ki nga xam ne mooy yaayam yàlla na leen yàlla xaaree na ñoom ñëpp su sedd seen kaw lu métti la nag mais àddina moo mel noonu daal. Grégoire. bon on c'est quelqu'un boo xamante ne nii il a internationalisé tey la musique sénégalaise donc euh, non seulement c'est une personnalité mais c'est pour man une figure boo xamante ne tey musique àdduna wërngal këpp ñoom ñoo koy wax personnalité la Sénégal mais àdduna wërngal këpp tey euh, ñoom ñooy fàttaliku waat Papa Thione donc quand on de Papa Thione tey man je me dis que euh, rappelle encore tey le mystère de la mort parce que tey ñu ngi toogaat lu ñuy waxtaane woy yim fi woy fi mu yóbbu raaya mm-hmm. Sénégal xam nga loolu rek dafa neex. Mhm. donc euh, ce sont des personnalités yoo xamante ni tey ku sañoon tey am li nga xam ne moom la ñu am moom mooy woy wadul fay. Mhm. certes gisatuñ jëmm ji mais tey li nga xam ne moom la fi bàyyi ñu ngi wéy di ko doxe ba léegi parce que tey ku déggaat ay woyam. Mhm. diñ ci jàngaat lu bëri loo xamante ni àdduna kese la woy woyul leneen deful folklore deful leneen. li mu woy moom mooy àdduna naka laay def ba baax lan mooy tey jàngatu tey li nga xam moom laay dund. li nga xam ne moom la ñu nekk di gis ci donc ce sont des personnes yoo xam ne dañuy wër leen regretter ba faaw waaye aussi ay bibliothécaires yoo xamante ni mën nañ nekk tey di doxe seeni i wëy di doxe li nga xam ne tey moom la ñu fi bàyyi. Euh, c'était pas c'est pas pour ñu koy woowee lu parolier de la musique sénégalaise parce que ay textes yu riche la daan def euh, way na fi dee way boobu boo koy déglu ba tey yow mm-hmm. da ngay jàpp ni Papa Thione mu ngi dund ba tey way na fi yaay woy fi yeneen ak yeneen ak ay valeur ak ay thèmes yu ama am solo waa téere la mm-hmm. day ñëwaat ba loolu moo leen différencier ak ak ñu ñu am léegi comme ay artistes je n'ai contre eux mais woy boo koy bind aussi si nga koy bind dans la Euh, du coup Euh, dañ koy woy ñu demaat vingt ans te tey jii am na woy yoo xam ne ñun ba mu koy woy juddooguñu te pourtant ba léegi soo koy déglu day nekk actualité loolu moom moo des ci jeunes yi tey alors Ndeye ñu la nga tëj foofu na waaye bu diglewul yeetewul loolu ay naxaate la boo ko déggee taxoon ñu tuddee ko le parolier de la musique sénégalaise way bu mu woy rek it la way bu mu woy rek nit mën na si jàng defar si àddunaam boo déggee bi wax doomu bàyyi bu lekk reer bi ba boo déggee mu naa topp doomu jàmbur liggéey ko ba mu yàqu yooyu yëpp ay woy la yoo xamante ni yëpp ay it la yoo xamante ne ni benn bu ci nekk rek bu ko nit dégloo na doon def safaan wi sax di nga xoolaat bu baax fi ngay teg sa tànk kon dañ koy ñaanal suuf yoof oyof tooy ci kaw moom Papa Thione moom nga xamante ne tey la def ñaari at si biir suuf ñu ngi koy dellu rek di ko jaalewaat askanu Sénégal yëpp ndax dëjëm du du jeex saa su nekk dañu koy fàttaliku kon ñu ngi koy masaw baax a baax man saa yu ma gisaan dama pétan waa taaw yi <laughs> ma ne ko mu ngi nii ndeysaan mu nekkoon un papa boo xam ne ku baax la woon vraiment kon nañ koy ñaanal bu baax a baax a baax moom nga xamante ne moom mooy papa Thione tey moom lañ doon rendre hommage ci émission xew-xew a baax di jégaloo nag bu baax a baax comme ni ma koy faral di dee du ñëw la ba vendredi inchallah inchallah waaw inchallah numéro xew-xew ko joxe <laughs> mu ngi woon si baa écran bi tey <laughs> ah, buy tëj ah, ëpp doole ay mots clés yu doy waar. <laughs> donc c'est toujours un plaisir di jàkkaarloo di yéen j'espère que vous avez aimé tey suñu astuce bi nga xam ne moom lañ leen indil donc ngeen reprendre ko euh, euh, compliqué wut ndox bu tàng at ko kese la di leen jox di jën dig daje ba suba incha allah ñu daal di ñëwaat ci yeneen astuce Aïcha. Kajoor merci beaucoup merci Kéna. Kajoor merci Aïcha di remercier aussi ñu ñu doon. déedéet ko gisoo gisoo maa ngi nëbb ah, sama loxo yi sax parce que deru jaasit <laughs> maa ngi koy nëbb bañ mu mu lii nag xaaral ma wàccoo parce que Alassane soo waxee rek day jël caméra bi rek dalu ko kii xam nga bambi kenn du ko gis de deru jasit laa yor. <laughs> Grégoire mi nañ la. émission mbégte la di jaajëfal également toute l'équipe di joxe rendez-vous demain incha allah. su si kaw ngay siisu ci kaw dafa neex fii moo dàkk ci suuf. mais ak na muy ñëwee. <laughs> situation bi moom moo merci beaucoup à toute l'équipe euh, ma remercier bu baax a baax Babacar Allo Paris euh, pour la tenue mais merci beaucoup aussi à ki nga xamante ni moo di Jantal Mara pour la perruque il est joignable au 77 217 89 76 mu ngi nekkee fële ca marché Sandaga merci beaucoup Ndeye perruque bi amul closure amul frontal amul dara donc demi-tête la da ngay ñëw rek teg. Euh, mu ngoog xam nga clôture daa cher du ñëpp ko mën a jënd donc voilà bi c'est fait pour ñi nga xamante ni seen moyen yi demewul noonu mu ngoog jaajëfal nañ leen voilà <laughs> dangay ñëw rek teg mu ngoog Weuz merci beaucoup merci beaucoup Alassane merci à vous amis téléspectateurs rendez-vous demain incha jaa ngeen jëf gars yi